parce que informatique mën na loolu. man nañu fexe ba. le candidat euh, le citoyen Oumar sec bu ko bu bu parrainé Al Amin par exemple notre autre euh, jël ay information par quelqu'un quel canal peut-être je sais pas soit euh, citoyen bi moo joxe wala ñu am ay information quelque part soo dugalee. normalement war nañ ko mën a paramétrer ba boo tappee ay ay information ñun la le le citoyen a déjà parrainé mun ma effectivement loolu informatiquement mën na am peut-être que dans les éditions spéciales euh, prochaines dinañ ci gën a bàyyi xel donc boo dee xool même avec l'autorité tu vois que bàyyiwul xel trop doublon yi te doublon yi wala parewuñu pour doublon parrainage bi voilà très bien ça veut dire jëluñu ko au sérieux parce que bu ñu bindee loi ku nekk war ko respecter ñoom lu am ay preuve matériel matériel que ni nit ki def na doublon pare na ma sàmba pare na ma demba yemu ca pare na ne ñeneen kooku nga xam ni am na leneen lu ko taxaw na jóg waroon nañ ko mën a entendre déglu ko xool loolu boobu faay fan la amee mais ñoom defuñu ko. d'accord loolu jafe-jafe la ci parrainage bi. tout à fait à fait d'accord léegi ci parrainage bi. xam nga au début dafa am ñu bëri ñoo xamante ne waxoon nañu déjà que ne. Mhm. parrainage bi le mhm. Sénégal n'est pas prêt pour adopter justement le système de parrainage on se rappelle en 2019 indi woon na fi coow. Mhm. boo am sax yenn ci ay candidats yoo xamante ne dañoo waxoon ne du dem ci parrainage bi tax ñu génn li nga xam moom mooy. la course à présidentielle est-ce que aujourd'hui loolu du joxewaat dégg ñi nga xamante ñoo ko doon wax déjà am na ci kenn koo xamante ba léegi mu ngi xeex Maître Abdoulaye Tine nga mm-hmm. bokk ci ñi nga xamante d'ailleurs samp nañu seen dënd ba léegi mu ngi xeex le système de parrainage au Sénégal est-ce que d'après li nga jot a si souligner n'êtes pas la première personne yi nga xamante ne souligner ko il faut oser le dire mm-hmm. est-ce que Euh, am na ñu ma dégg ñu ni ñu ngi koy rafetlu parrainage bu amul woon candidat yi dinañ bari. bien sûr c'est vrai que filtre la de. effectivement mais mais filtre la boo nga xamante ni nii. Euh, way ñi nga xam ne ay candidat lañu nekk ay parti politique. amuñu benn pouvoir amuñu benn moyen pour vérifier si effectivement le filtre a été fait. et de manière transparente et démocratique amuñu ko. c'est-à-dire. ça logiciel bi nga xamante ni après moom mooy mooy filtrer mooy génne doublon yeeg yooyu. Hmm. mais amul benn parti bu ci am bu ci am benn information. waaw mais gis nañu F24 mu indi woon fi logiciel boo xamante ne dafay xeex lépp lu jëm doublon ci ñi nga xamante ne ay candidats daal bokk ci F24. voilà très bien xam nga am na ay solution informatique man na lu ne. bien mais ci joŋante. on ne peut pas être juge et parti parce que l'autorité bien vrai que autorité la mais gis nañ quand même la mainmise de l'État les autorités étatiques ci li ñuy def. oui mais ñi nga xamante ne ñoom ñooy saytu parrainage bi. ñoom ay candidats lañu. pratiquement le régime en place. oui d' régime bi ay ci ci ci régime bi c' est à dire candidat la dafa bëgg toogaat ci réew mi. tout à fait mais yi nekk ci conseil constitutionnel xëy na xam-xam na ñoom ñooy saytu parrainage bi. oui mais ñoom. ils n'ont rien à voir avec xam moom mooy jëm ci régime bi. non conseil constitutionnel loolu moo war a mën a am. conseil constitutionnel recevabilité candidature lay lay étudier mais les préalables. les conditions. yi nga xamante ni nii comment dirais-je mooy tax nga sa nga éligible loolu di ci conseil constitutionnel lañ koy gëstoo par exemple DGE moom mooy recevoir candidat bi recevoir mandataire am def les contrôles qu'il faut. donc ko jox ay fiche parrainage donc DGE moo géré parrainage bi à ce test ci étape boobu noonu alors je je pense que euh, ay ay administrateurs la ñu mais on a vu au Sénégal que l'autorité étatique des fois dafay joxe ay instructions ci administration ci administration bi administration bi aussi elle est tenue de respecter ces instructions là mais bu dee la haute autorité étatique am na ay intérêt ça veut dire am na candidat am même moom bu dul candidat la haute autorité je veux parler du président de la république hmm. am na candidat am ba pare am possibilité joxe ay instructions à l'administration qui exécute. Hmm, mais est-ce que président Macky Sall kan joxe na ay instructions déjà kan la jox instruction ci administration bi ngay wax vous n'allez pas me dire que la DGE vous n'allez pas me dire que la Sénat par exemple wala yeneen ay. instructions mais li xew Sénat xanaa seetaanoo ko àll. bien sûr ah donc loolu rek. mais xew. ah mais bi ñu waxee ni dañoo war a jox euh, euh, le candidat Ousmane Sonko ay fiche alors ñu ñu ñu ñu wax ci ay wax après on a vu que dañ leen a jële foofu ñoom ñëpp indiwaat fa ñeneen donc autorité publique bi am prérogative boobu mm. ba pare am candidat ci biir je dis que on ne peut pas être juge et partie bien vrai que moom jugé wul te al amin li ma lay wax nii képp ku génn ci parrainage bi c'est parce que le président Macky Sall dafa bëgg nga génn. c'est-à-dire ku génn ci parrainage bi dafa neex Macky Sall. dafa neex Macky Sall. non parce que li xew rek li weesu firndeel na ko am na ci élection présidentielle yu ñu jàll en 2019 ba ay ministre am génnee nii. Euh, du ñu romb cinq candidats effectivement romb ñu cinq candidats te loolu sénégalais yëpp dégg nañ ko. ba ñu defee élection ba pare aussi ñu ni cinquante huit pour cent la ñuy gagné premier tour pratiquement cinquante huit pour cent la ñu gagné premier tour. Hmm. alors donc loolu c'est des déclarations yoo xamante ni euh, elles peuvent avoir valeur de preuve pour montrer que ni l'autorité am des informations de plus que les autres candidats ñi nekk en lice te loolu c'est pas normal. de manière démocratique on ne peut pas être juge et partie et li tax boobaak léegi moom bëggul jël le ministère de l'intérieur bi nga xam ni moom mooy saytu affaire élection mu jox ko ko nga xamante ni dafa neutre bien vrai que neutre jafe na mais Abdoulaye Wade l'avait fait bien sûr donc il ne devait pas faire moins que Abdoulaye Wade et jusqu'à présent il refuse de le faire et il brandit des arguments pourtant Maître Sidiki Kaba moo ne moo fa nekk. non Maître Sidiki Kaba c' est dans dans dans Benno Bokk Yaakaar. donc vous voulez dire que vous n'avez pas confiance sur Maître Sidiki Kaba. ñun amuñu ci ñoom à l' organisation des élections ñun amuñu ci Maître ci Sidiki Kaba confiance ñu wax ko mu leer. vous n'avez pas la confiance. tout à fait. sur Maître Sidiki Kaba voilà parce que c' est un ministre du gouvernement. c' est un membre de Benno Bokk Yaakaar. Benno Bokk Yaakaar am na candidat. on va dire que les autorités territoriales yi nekk ci sous-préfecture yi gouvernance yeeg yooyu ñooy saytu élection yi mais on sait que ça c'est c'est l'étape exécutoire maanaam le le commandement territorial suñ demee ba ci élection war a indi urne yi war a aménager bureau yi war a def yeneen ak yeneen yu demee noonu ñoom ci la ñuy entrer en jeu pratiquement alors mais foofu li ñu dogal ci kaw moom la ñuy exécuter à ce niveau-là donc boo bàyyee ba ci étape exécutoire bi ngay doog a teg sa ay ñaxtu kenn du la déglu. est-ce que vous pensez qu'au Sénégal élection présidentielle yu dégg man mën na nekk élection yoo xamante ne dafay am lu ci mel ni ay sàcc ngeen baal na ci kàddu gi. est-ce que mais mais Al Amine élection présidentielle yu 2019 deuxième tour amoon na. c'est-à-dire deux deuxième tour amoon na mais fan fan la jaar. deuxième tour amoon na. élection bi premier tour la génnee Macky Sall gagne. non euh, non c'est ce que l'autorité constitutionnelle a déclaré. mais nous on a été sur le terrain. donc vous doutez du je résultat yi nga xamante ne de 2019 de 2019. donc selon vous le président Macky Sall li nga xam moom mooy deuxième mandat bi moom ne pas valable. mais ça veut dire que ça veut dire que ce qu'il faut comprendre mooy élection loo ci def lu ci bokkul rek lu ci am ëllëg sa responsabilité bopp la loo ci def lu ci bokkul ëllëg lu ci am ci ci ñaawteef ëllëg lu ci am ci dut ci sa responsabilité la la la la lañ koy ranger ça veut dire les élections de 2019 la plupart des Sénégalais ont constaté et ont cru fermement que ni deuxième tour amoon na te li ko firndeel mooy que deuxième gis nga après dafa daal dem rallier ji euh, mouvance présidentielle bi et dans sa déclaration il dit carrément que on a commencé à négocier et à se parler voilà 15 mois quinze mois yi boo ko étalé ci kii bi antérieurement da ngay gis ni presque au lendemain des élections lañu tàmbali di waxtaan. donc vous voulez dire que Idrissa Seck bokk na ci bu fekkente ne deal am na ci li xew en mais deal am na. maanaam bu mais deal am na te je vous dis une chose ici Al Amine le vrai candidat de Macky Sall c'est Idrissa Seck. pour cette année-ci. pour ces élections là pour l'année président pour l'année 2024. le vrai candidat le vrai candidat de Macky Sall c'est Idrissa sec Et Amadou Ba dans tout Ba, c'est le candidat de l'APR. Mais le président Macky Sall le président de l'APR. Euh, voilà. comment se fait-il que mu nekk président bu APR am beneen candidat bu nekkul. non mais Macky Sall musul gëm APR. c'est son parti à lui mais musul gëm APR. je je peux vous donner des exemples à fois allez-y ce sera avec plaisir il faut que nga expliquer li déjà déjà bi ñu gagné war a xëy taxawal gouvernement. gouvernement kan moo koy jiite mooy le premier ministre kooku moo am la responsabilité de réaliser de donner corps à la vision politique du président hmm. kooku kon dafa war a bokk ak moom euh, cëslaay yàgg a waxtaan ak moom ba comprendre vision maanaam bokk ci partem au moins mais Macky ba mu waree fal premier ministre kan la fal Abdoul Mbaye hmm. il n'était pas de l'APR il n'était même pas de de Macky 2012. oui mais Abdoul Mbaye deuxième tour dafa rali woon Macky mais ku nekk ñi tax Macky Sall jot. mais il n'est pas de l'APR. d'accord mais est euh, par exemple on se souvient en 2000 en 2000 en 2001 2002. oui euh, Moustapha Niasse était premier ministre pourtant bokkul woon idéologie ak Abdoulaye mais loolu dañ ko waxtaane ci ci la grande coalition bi fal euh, ma Abdoulaye Wade au au au. pareillement en 2012 dañ ko waxtaane moom voilà très bien mais xam nga lan moo ma jàpp ni foofu euh, parce que après les apéristes authentiques ont demandé à ce que ñun amuñu assemblée nationale amuñu benn institution même gouvernement bi sax on n'a pas quelqu'un du parti bu fa nekk lool c'est pas normal Abdou Mbaye yàggu fa c'est par la suite qu'on a fait venir Mimi Touré bien sûr et que même Mimi Touré boo dee xool euh, les apéristes yi ko doon critiquer c'est parce que nee nañ Mimi n'est pas apériste authentique parce que ba ñuy sos APR en 2008 2009 ba 2000 2010 boobu mi mu nekku fa woon donc ki nga xamante ni nii moo sos parti bi ñu ñu élaborer ay statut règlement intérieur définir doctrine parti bi mu mettre ko en application dans l'opposition dem jaay ko yoonu yokkute par exemple mais on doit avoir quelqu'un de cette trempe-là pour man ko def premier ministre pour mu man a réaliser vision boobu parce que bu boobaa day fekk mu comprendre ko bokk ci ñu ko tabax bokk aussi ci ñu ko jot a pratiquer dans l'opposition mais, mais tel n'est pas été le cas. après il s'est mais il s'est racheté mais on a vu par la suite li xew ci diggante APR ak ak euh, Abdoul Mbaye il s'est racheté avec Mimi Touré Mimi Touré yàggul foofu. Hmm. man Mimi Touré j'ai travaillé avec elle. bu ñuy bu ñuy wut ku integre bu ñuy wut ku am jom am fulla ci boppam. Hmm. mais bariwul APR ñuy tolloog moom ci loolu. ñuy tolloog kan. ak Mimi Touré ci ci cas valeurs yi ma wax di yépp amul man je l'ai pratiqué. mais dama ko pratiqué déggoo li ba la wax man dama liggéey ak Mimi Touré. J'ai travaillé avec Mimi Touré surtout dans des projets de construction citoyenne parce que man le, le, civisme et la citoyenneté mooy sama champ de prédilection moom sa mus a intéressé. Bien Quelqu'un m'a mis en rapport avec elle ni ma yow sa projet yi ngay wax je vois quelqu'un koo xam ni dina ko intéressé c'est une dame jox ma turam wax ma kii am Mimi ture woo ma ma détaillé ko recevoir ma sax je peux dire. on a échangé sur ça. mu ni ma lii moom ça nous intéresse parce que alliance pour la république lépp loo nga xamante ni day dëgëral la république dina dina dina dina ko intéressé. d'accord et quand on balance directement pour ne pas vous couper la parole. oui bu ñu balancer directement ci loolu. oui. vous avez renoncé à votre candidature. xalaat à ce a renonciation candidature. tout à fait oui. mais da nga wax turu Mimi et puis tu as chanté justement. Mimi Touré. Mhm. ci li nga jox li nga xamante ne jot nga ko liggéey ak moom. waay démb la déposé li nga moom mooy dossier de candidature mhm. est ce que mën nañu xaar. Mhm. yow ak ñi nga àndal ngeen dem booru ci ginnaaw Mimi Touré. non Mimi Touré lorsque les Sénégalais bés ñu découvrir cette dame là dinañ xam ni kii ku ñu mën a jox réew mi la parce que man wax naa ni je l'ai li ma gën a dérangé ci Sénégal. daf koy déranger moom xam nga mooy lan muy politique gu xaalis et d'ailleurs ñi ko xam doon ay acteurs politiques yépp liggéey ak ñoom danaan mi mi du joxe xaalis daf ma daan wax Omar booy wax waxalak ki nga xamante ni nii day jékkati juróomam teg ni la kaañu liggéey mais ki ngay ñëw rek ni ko kaañu politique mu ni la indi xaalis bi parce que loolu na Sénégalais yi def ah ana xaalis bi loolu lañ lay wax mu ni kooku moytu ko xaalis moo ko tax a jóg alors Mimi Touré depuis voilà temps euh, dañuy waxtaan ay message nii rek mais ce ne pas carrément bien vrai que benn moment sollicité na ma ñëw liggéeyal ko ci li mu taxawal mais boobu fekk na déjà ADN juddu na boobu fekk na ADN comme parti politique juddu na comme mouvement politique en ces temps la alors donc il elle était dans ces schémas bon ànd ak opposition bi te jamono boobu aussi tamit il a une frange de l'opposition man ni ñu doon defee politique d'accorduma ci parce que politique gu kaay ñu xeex politique gu kaay ñu dee politique gu kaay ñu taal yemoo ca tu descends bëgg indi ay valeurs yoo xamante ni musul am Sénégal ñun loolu ànduñ ci. on a échangé sur ça mu ni ma l'essentiel c'est de se battre pour que Macky Sall du doon candidat. mais mais mais sëñ Naouma. oui li ngay wax. Mhm. ak Mimi Touré li mu taxawee woon. oui si si si en dafa xaw a mel ni tulli maani. ah bon li tax ma wax ko mooy. Mhm. opposition bi ngay wax ni àndoo ak opposition buy buy toj. Mhm. opposition bi ngay wax ni àndoo ak opposition boo xamante ne dafay indi beneen idéologie. Mhm. mais opposition boobu mu ñu turee la ànd c'est-à-dire mu ñu turee moom dem na fekki ji opposition boobu. déggoo li ma la wax. benn instant nee na ma Oumar il s'agit pas d'installer quoi que ce soit ou de de euh, ay valeurs yi ngay wax ni yëpp c'est c'est bon mm. mais là l'enjeu c'est de faire tout pour que Macky Sall du def troisième candidature moom c'était son combat alors et que aussi tamit mu organiser ay élections yu transparentes yu jaar yoon alors dem bàyyi fi Sénégal mu mel comme nañ ko ko joxe woon mais man je fais pas de la politique circonstancielle Je, ça veut dire que non non non et, et politique circonstancielle mooy l'acteur politique day xool ci circonstance bi mu nekk liy intérêt am ak liy préoccupation mu dox ca. Est-ce mais jamono bi ma koy wax c'était bien sûr ça parce que daf ma et aujourd'hui peut-être les choses ont changé beaucoup d'eau a coulé sous le pont non mais bu ñu xoolee logique rek oui ça peut parce que ba léegi xeexam mooy Macky Sall ñett du def troisième mandat mais aussi Macky Sall na def élection libre et transparente bàyyi fi Sénégal comme ni ñu ko jëlee woon xam nga bu doon Macky bu mu doof troisième candidature moo doonoon vision politique moo doon ambition politique moo doon objectif politique kon atteindre na ko kon am na benn bu des am na benn bu des. muy bu mu dem bàyyi fi Sénégal comme niñ ko kiiyee loolu peut-être fi mu ne euh, mënuma jàpp ni euh, dinañ ami loolu parce que ni ñu gisee parrainage bi 33 par exemple candidats déposé bu dinan filtre ba filtrer ñoo nga xamante ni nii boo sàggantul après dinañ taxaw ci mbedd mi bëgg a xeex pour seen candidat dugg yooyu yëpp mën na indi ay tensions et puis tamit parrainage bi d'accord mais même le scrutin. Sénégal am na ci nu ñuy doxale seen politique ak seen ay élections yoo xam ni ba léegi sénégalais yi d'accorduñ ci mais loi la dañ koy accepter di ci dem mais dañu toll instant bi ci Sénégal jamono boo xamante nii nit ñi dañuy bañ te duñ yem ci bañ di ko wax rek dañuy bañ wàcc ci tali bi. Hmm. donc wàcc ci tali boobu mën na indi ay tension yoo xamante ni nii mën na tax élection yi du du du dem. d'accord voilà Seydina Omar Touré. Euh, mhm. Seydina Omar Seck. oui. Mimi Touré Mimi quoi oui Mimi waaw Mimi Mimi Touré. voilà dégg Mimi Touré bi ñu ma xaw a yóbbaale mais bon. c'est pas grave Mimi Touré. Mm-hmm. koo xamante ne une dame que vous appréciez. oui est-ce que vous validez sa candidature. non man waxuma valider sa candidature. mais moom est-ce que yow. Euh, bien sûr nga ni war na mën a nekk. ci damay dem même au delà de ça dama jàpp ni moom mën nañ ko jox réew mi. mu doon dañu taxaw ci donc aussi mën nañu jàpp ne yow bu la mi nee kay yegg si ñu liggéey di nga di nga dem. non ñun dans notre doctrine politique. et d'ailleurs wax naa ko ci benn émission à Thiès. opposition warul am fii Sénégal parce que ça nous fait perdre du temps temps bi mu ñuy perdre loo. c'est précieux sénégalais yi xamuñu ni on perd du temps. ci këral xëccoo xiiroo ŋaayoo defante reyante alo defante boobu ñuy def day am lu muy jur ci nit ñi parce que da ngay dem tey Sénégal ba benn kër rek daanaka débat politique bu normal mënatuñ ko def parce que ñaari baat ñett xol yi jóg dënn yi tàng parce que dañu jël politique bi def ko benn genre wu euh, violence genre tyrannie li nga gis moom la ñëpp war a gis li nga bëgg moom la ñëpp war a bëgg alors di indi tension ci loolu alors que dañu war a xool suñu ay différence daf ñu war a enrichir en tant que sénégalais parce que mën nañu bokk liggéey bokk xam-xam bokk diplôme mais yàlla may la avec des dons innés yow nga xamante ni nii da ma ciy ëppales tuut te loolu day am influence ci liggéey bi mu reconnaître la sa don yooyu reconnaître la sa mérite ba lépp loo nga xamante nii laale na ak sa don yooyu nga am te amuma ko bien vrai que journaliste nga journaliste la ma ne ah pas moi il faut donner ça à Al Amine bien yi xamuñu loolu fi mu ne nii ôte-toi de la où je m'y mets ñu xam ñi ngay dégg ñuy wax yépp mooy dama bëgg a falu follil leen ba Al Alim Al Amine damaa bëgg a falu hmm. alors loolu dafay indi xëccoo léegi opposition d'accord dina am mais ñu ñu opposé wu rivaliser ci lu baax ak luy jëriñ sénégalais yi opposant bi bañ a jàpp rekk ni moom bokkul ci gouvernement bi warul def dara ci dëkk bi mais opposant mën na am selon ses relations mais benn financement de tronçon benn goudron boo nga xamante ni gis na benn dëkk bu nekk dans le Saloum ou dans le Fimela ou ou dans dans le Fuladu mais mu am de manière à titre privé ay partenaire am ñu ñu ñëw jàppale ko mu ñëw ci état bi état bi jox ko autorisation mu tabax loolu baarataal li mu def à Thiès tabaxaat école école boobu fi mu ne nii mooy école bi dàq ci Sénégal mais loolu doo gis benn politicien opposant bu koy def boo waxee mu ni opposant awma xaalis sama ki fi nekk ñu koy jox xaalis bi nañ ko def alors que même yow Al Amine hmm. su Macky Sall ne dafa bëgg mille emplois da nga war a jàpp ni yow al amin cinq mille yooyu am nga ci wàll ñaata emploi laa mën a créer le patron de la boîte l'a fait bokk na ci cinq mille yooyu ku ci nekk gis ni les objectifs du président de la république incluent mes objectifs en tant que en tant que en tant que citoyen genre opposition boobu ak état d'esprit boobu noonu la sénégalais yi war a demee parce que nguur ak ku nekkul ci nguur saay bu ñuy xeex xeexu bëri bukki la ak mbaam toujours ki néew doole moom mooy moo moo mooy jëm mooy mooy jëm suuf te ki ñëw ki néew doole mooy opposition mais ki néew doole mooy opposition parce que état nit ñi dañ ko war a xam dangay dégg état bi defaluñu lii état bi ñu ngi koy alors al ko xamul ni moom ci état bi la bokk parce que Kelsen boo demee en première année de droit day définir l'état c'est nous bu ñu defee campagne électorale ba dem ci élection ba ni Al Amine déclaré élu officiellement président de la République du Sénégal rivalité jeex na soo dee un bon patriote da nga war a jéem a xool naka la Al Amine di réussir mission naka nga koy jàppale. naka nga koy jàppale bien vrai que opposant nga. mais Idrissa Seck loolu la def sànq li nga doon wax léegi. non non non non non non Idrissa Seck beneen affaire la Idrissa Seck moom. boo bëggee après ñu ubbi ci parenthèse mais Idrissa Seck. beneen non mais pour pour pour pour son ralliement vers Macky Sall. oui lui-même il déclare que c'est boo xamante ne moom jàpp na ne. Ah. réew mee ko soxla te réew bi bu ko soxlawee moom dafa war a ñëw euh, pour pour pour liggéey dans l'intérêt du pays. c'est noble c'est noble c'est noble l'argument brandi le prétexte c'est noble. Mais dans la réalité, qu'est-ce qu'ils ont fait ensemble Mais est-ce que Khamgani dans cela, et d'ailleurs c'est Idriss Seck qui le dit, moi que Dani Mamon, après euh, Moudokhal, Boudjekhale, ma Mamadoukhal, mais de vous. Ça veut dire que Wabenno Boko Yakar n'y a pas. Mais bien sûr, lors de sa dernière conférence de presse, hmm. xawma la première, parce qu'il a fait de conférence de presse presque yu sorewul. Hmm. moo wax ni li doon li ñu kii woon mooy day doxal bu paree jox ma ma doxal. alors mel ni euh, affaire bi euh, teng teng si la bu ñuy paasante. Hmm. alors peut-être que l'autre a euh, souhaité avoir son soutien day d'accord lu mu ko wax mu ne ko d'accord alors il vient mais la réalité interne de l'APR de benn Bokk Yaakaar moo indi. seen séparation bi ñu séparé wu nii. la réalité en termes de Benno Bokk Yaakaar selon vous. vous vous mooy que des vous faites référence à quoi exactement mooy des gens vont lui dire que ñun duñ fi nekk gagné élection ko a demaat ci yeneen i échéance électorale ñu ñuy jël ko xam ni bokkul ci parti bi di di ko jox yëf donc jàpp nga ne. mais loolu tax Idrissa Seck di nat mais loolu la. mais loolu sax ñu ñu koy moom la mu bëggoon bu ko amoon biir Benno Bokk Yaakaar même je lui dire que le poste de. Euh, e Amadou Ba. oui Amadou Ba bii nii. premier ministre moo moo waroon a doon premier ministre. mais les gens de Benno Bokk Yaakaar surtout les gens de APR ont, ont menacé. et boo dee fàttaliku. Euh, gouvernement boobu toog nañ presque ba guddi. bien sûr mënuñu fexe ba ba déclarer affaire yi. bien sûr c'est euh, defe naa finalement et dans les dernières instances que le président a appelé euh, comment dirais-je Amadou Ba. alors que ñoom ñaar ñu ngi doon wax ne dañoo am ah. féewaloo seen ah, diggante. mi ngi noonu bettoon nañu bëri. mi ngi noonu donc euh, man li ma gis politique amul baare yëgoo politique amul combine ku ci nekk da ci war a dem avec conviction. parce qu'il s'agit de gérer la cité de s'il s'agit de gérer l'avenir de ce pays. mais Baara Yego bi yéen yéen a koy def yéen politiciens yi tamit. non voilà xam nga lool nag dañ ko war a diddi Baara Yego bi mooy deal bi et puis dinaa la wax benn affaire. allez-y. Sénégal dafa am ay valeurs yoo xamante nii buñ ko kasewul réew mi du dem et d'ailleurs moo tax a ADN on a lancé une mission qui s'appelle Mindset Generation. Mmh. Ça veut dire on doit fair une mise à jour de l'état d'esprit de notre génération parce que li nekk ci xel yi moo baaxul pour développement sénégalais Olof Ndiaye nee na foo ko déggee mooy lu sénégalais yi gëm lay doon wax la joo xamante ni Sénégal sénégalais bi daf ko war a adopté gëm ko. neel benn. benn Olof Ndiaye da lay wax ni nguur lekk ak naan foo lekku day bette doo koy dégg. Mhm, nguur lekk ak naan foo lekku day bette. waaw alors quand l'acteur politique dégg loolu sénégalais yi di ko wax loolu ay mbokkam di ko wax loolu ay xaritam ak xameem di ko wax loolu même bu amul intention boobu day toog ba ci yàgg son intérieur moo koy posé ay questions. parce que seytaane waxul xel yàq na xalaat. très bien neel ñaar. njëriñ loo fekkee. dingay dégg ñun la olof Ndiaye nee njariñ loo fekkee. oui mooy loolu loolu mooy lan al amin mooy que li ngay def nii tey tey tey tey tey jii nii su la dul amal njëriñ tey tey tey tey. bàyyi ko parce que boo deewee bu njëriñ la ñëwee yow doo ko fekkee te du la jëriñ loolu mooy njëriñ loo fekkee te loolu c'est ancré dans nos esprits est-ce que Cheikh Bamba bu ni woon njëriñ lu ma fekkee est-ce que dina dem ci géej gi maam limaamu ah Baye Niass ñoom ñoom ñëpp bu ñu woon njariñ lu ma fekkee est-ce que liñ fi liggéey tey ba sët yeeg sëtaat yi di ci jëriñoo ñun sénégalais yëpp di ci gis suñ bopp. Hmm. est-ce que kon dina dina leen ko jaral genre yu wax yu demee noonu ak genre yu considération yu demee noonu moo indi ce qu'on appelle le dérèglement culturel maanaam ñun sénégalais yi ay sénégalais lañu mais am na ci suñu suñu suñu suñu suñu xal ak suñu xalaat ay gis-gis yoo xamante nii dañ dañ ko war a bàyyi sinon rek dootul doon ñun. Hmm. mais li fi xew ci dëkk bi ci jamono yi ñu weesu nii mais soo xalaat ni dina am Sénégal. lu ci mel ne manifestation yu métti. manifestation loolu sax naqariwu ma. parce que manifestation ku fekkee 88 xam ne manifestation yàgg na am ku fekkee euh, le 23 juin 2011. très bien de waaw di nga xam ne manifestation yàgg na am. Hmm. mais kilifa diine yi ñuy saaga ci télé yeeg ci rajo yi. ak bëgg leen a xamal ni leen ñun am na ñeneen ñu ñuy déglu léegi ñu dootul yéen am ci sax ñu am ñu fit tollu fële Europe. wala Amérique di def ay live di wax ni ñoom ci deal bi lañu bokk te koroog bi ñu demee ba yëf yi tàng ba tàng. Hmm. mais nitu diine yi lañ jël woo leen indi leen ñu toog ñu ñaan jàmm wax taalibe yi ñu daw affaire ba fa la yem. Hmm. donc ñooñu boo boo boo ignoré wala xamuloo seen pouvoir social mooy que yow doo kiy développer Sénégal. e que même avec ADN ñun on a décidé de mettre en place des institutions sociales yoo nga xamante ni nii këru diine gu ci nekk ak tarixa bu ci nekk dafay am représentant ba nga xamante ni nii li nga xam ni mooy njëriñ ak xel ak xalaat xam-xam bu sell bu rafet bu mën a jëriñ Sénégal ñuy fexe ba muy dugg ci programme état bi loolu ci suñu programmation la bopp parce que tamit euh, pouvoir religieux boobu mais mënuñu ko occulter hmm. yow mii nii tey lu mu xat xat xat xat bu sa sëriñ wootee da ngay wuy ji bu la sa sëriñ nee kar téléphone ni ma dama bëgg nga doxale nii waxe nii. saay boo toogee ci plateau télé di di wax wala ngay jëf mais di nga ko bàyyi xel. te ñoom seen ay kaddu du loo nga xamante ni dañ koy sofantal parce que ñun Sénégal loolu la ñu loolu la ñu yàlla ruuse ba léegi. donc képp ku ñàkkal fayda loolu wala nga bëgg a naxasal loolu doo kii defar Sénégal. oui mais est-ce que am na ay homme politique yu taxawee taxawaay bi ngay wax nii. mais bien sûr am na fi am na fi. est-ce que wane nañu seen bopp ba ñëpp a gis leen. dañ koo ñime ñime wuñ ko loolu mooy problème bi. mais dénoncé leen. non moom laay def nii di seen bopp fësal seen bopp ci loolu. ñoo xamante ne dañuy taxawaay taxawaay. bi ngay wax maanaam mais kon bu boobaa joxuñu joxuñu gëdd. mais bien sûr am na. Euh, mais Al Amine man su ma yeewoo ci sa kap keppaar di wuyoo sa tur. di la liggéeyal mais lu ma wax lu ne olof Ndiaye day wax ni lu naar ba ndaw boo wax ba ca xayma ba la ko déggee. yow xanaa en fait xanaa Ousmane Sonko ngay waxal parce que Ousmane Sonko moom la ñuy gis parfois mu yëkkati ay war naa soppi doxalin. c'est-à-dire. parce que bu ñu waxee lu ni mel rek ñëpp xalaat ko moom. non c'est pas c'est pas que ñëpp ñoom ñooy xalaat Ousmane Sonko mais quand on quand yow sa en man damay wax. di suivre li nga xam moom mooy analyse bi ngay joxe. des hommes politiques. yoo xamante ne dañuy non non et pour dire et pour dire franco. parce que ñun xulul ak walaw kaana muran lañ. bien sûr bien sûr fii dëgg moo fi am. bien sûr tey ku wax dëgg yaa yaa yàlla ànd yàlla a ngi ànd ak yow. ñun tituñu loolu. Ousmane Sonko je l'ai dit ci benn émission je regrette su Ousmane Sonko. pourquoi je regrette Ousmane Sonko mooy que li mu bëgg nii mu jafe ko lool mënoon na koo yomb lool. c'est-à-dire mënoon na nekk président mu yomb ko lool très facilement. donc lan mooy jafe-jafe bi. mais c'est parce qu'il est mal entouré. Ousmane Sonko est mal entouré. il est mal entouré parce que man entouré bu ma ko jàppee mooy damay ànd ak yow di liggéey sa victoire mooy sama victoire sa défaite mooy sama défaite sa échec mooy sama échec lépp loo nga xamante nii gis naa nga def ko wala nga wax ko dama la koy wax avec franchise ni la tu es mon leader. man yaay sama référence mais tey fii da ngaa waroo waxe nii waroo defe nii. donc ça n'a pas été le cas. ça n'a été le cas Ousmane Sonko dañ ko bàyyi. muy wax sur quel point exactement. mais gatsa gatsa d'ailleurs ni ni ko waxee rek baat bi rek euh, sénégalais bëggul loolu ku dee sa yaay jureer bi voilà très bien xam nga ba mu ko waxee. dañ ne ay waxam la alors que duy waxam te ci même déclaration bi daf ne xale yi sax ñi ngi naan ku dee sa yaay juraat hmm. mais tamit xale bu waxee tooxi doona wax musiba hmm. wutal ni ramata tare mais yow en tant que kilifa waroo ko cautionner sax ba koy reprendre ci sa ay wax parce que yow def nga communication les références ont leur sens comme hmm. boo nee comme disait diw indi li mu wax mooy da nga cautionner loolu bien donc moom waxu ko mais dafa cautionner wax ja ba di ko dugal ci ci discours am def naa sama testament ba pare sama yaay ñaanal na ma est-ce que pare ngeen pour dee waxul dee mais pare ngeen pour dee nous sommes des communicants par est-ce que pare ngeen la vraie question mooy pas est que pare ngeen pour dee mais je di que ce n'est pas normal parce que yow Ousmane Sonko. Hmm. tu cristallises l'espoir de cette jeunesse. entre 2019 ak 2023 ñu topp la gëm la ba naan la Ousmane Sonko mu sell mi ndigal la ñuy xaar. Hmm. mais nga gàdd projet bi. projet bi yow da nga ko war a réaliser mais nga ni pare nga pour dee. donc vous pensez qu'en un mot Sonko a échoué et a fait capoter le projet de Pasteur. de par sa communication. parce que bari na ci loo xamante nii xam naa da ko daan wax pour xupp mais du woon réellement lu mu gëm désobéissance civile man musuma dégg benn politicien bu wax a wax ba ba joxe loolu comme consigne. bien vrai que ab Ablaye wadd ak ab Abdou ab Ablaye Wade ak Senghor lu ne xew na fi mais désobéissance civile. Hmm. man ku ma dégg mu koy wax dama gëm ni yow gëmoo république gëmoo Sénégal. Ousmane Sonko gëmul république gëmul Sénégal. ah mais mais désobéissance civile nga def ko fi. et en terme juridiques dafa am ce qu'on appelle un précédent. déjà désobéissance civile ou désobéissance civique. civil, civique, je veux dire. Voilà, merci beaucoup. Mm. Civique, mais c'est presque du pareil au même. Bien sûr. On se comprend. Oui. Alors, mon boire est l'ol, tu doon président de la République. Hmm. Mais damay am problème en tant que républicain. damay gis ni kii mu ngi mu ngi ji loo nga xamante ni ëllëg moom sax mën na ko rattraper man na fi doon président nit ñi jóg wala des leaders politiques comme moom toll ci situation yi mu tolloon ni désobéissance civique hmm. alors dès ses premières déclarations il dit que man j'avais même prévu bu ma amee 15 ans ci ci ci administration damay dama koy quitter parce que l'administration la fonction publique alors doo am xaalis man je suis un fonctionnaire de l'État mmh. et vous savez que le premier agent de l'État c'est le président de la République mmh. te le président de la République bu ñu ko falee toute la politique qu'il va dérouler mmh. il va le faire avec les agents de la fonction publique d'abord parce mm. que ñoom ñoo yore administration bi bien sûr bien sûr mais kooku ni man gëwuma administration et d'ailleurs j'avais prévu bu ma amee quinze ans ci administration bi damay génn wax ko nga dégg oui mais est-ce ko comprendre ak ni mu koy euh, mais ku ko comprendre neneen mu expliquer ma ku ko comprendre neneen mu expliquer alors ce qu'il a aussi avec Sweet Beauté oui man j'ai habité pendant quatre ans à côté de Sweet Beauté donc xam nga fa xam naa fa tey je parle ci télé waa Sacré-Cœur ñi ngi may dégg am na fa ñetti milieu yu xaw a mel ni Sweet Beauté je veux pas citer des non benn bi restaurant la benn bi ab magazine la xawma ñu ni mais tout ça les les gens de Sacré-Cœur savent que ici c'est des maisons closes xam nga dëgg rek la yàlla bëgg mais yow sa ndigg dafa metti yow est-ce que sa ndigg mus na ne metti Al soo soo soo tissiolé da ci répondre pour nga wàcc sa kaw lal problème la sa digg metti ngay malade nga tëdd ba guddi yow nga ni mënuloo koo fanaanoo il faut nga dem ci benn intervention ñu defal la massage yaa ngi dégg hmm. ànduloog accompagnant parce que malade day ànd ak accompagnant hmm. ñu génn ni kan moo ànd ak malade bi nga ni maa ngi nii ñu wax la li ñu lay wax parce que malaat nga indi hmm. ànduloog sa soxna ànduloog sa chauffeur àndulook sa garde corps ak ndigg man ni ma ko xame parce que dal na ma ñaari yoon te chauffeur yi may dégg xam nañ li may wax ndigg luy metti ba mu munu koo muñ ci guddi gi munul ànd ak dawal oto dugal vitesse génne yéeg doo daan wàcc munul am mais est-ce que Adji Sarr réellement day faj ndigg ban diplôme la am bu koy wone xam nga yooyu yëpp bu ci amee nattu day dal nit ki parce que man nii nii peut-être loolu noonu ko dal di nattu hmm. mais man na maa dal parce que ñun ñëpp ay doomu aadama lañu yonent yàlla Yusufa jiñoon nañ ko ko. bien sûr mais dafa jokk ci suñu borom ne yàlla yàlla li leeral lii. Hmm. yàlla yàlla daf ko leeral. alors mais nga wax ak sénégalais yi avec un franc parler. mais qu'est-ce qu'il fait en premier lieu. dafa mel ni dangay ngay da ngay bëgg a yeewaat fitna di. tuuma non yeewuma fitna de yeewuma fitna. xam nga lan laa koy wax. oui man jàpp naa ni bu ko yàlla dogalee candidature dina jàll. Ousmane Sonko candidature am dina jàll. war na mën a jàll. war na mën a jàll sur quelle base. sur quelle base mooy déjà comme que jox nañ ko ay fiches parrainage. est-ce que jox nañ ko fiche parrainage. ah ñun selon li ñuy rapporté parce que man j'ai pas enquêté sur ça. Hum. mais li ñu dégg ci presse bi mooy moom def na parenage Diomaye def na parrainage. def na jël na en fait est-ce que jël na fiche de parrainage mais en tout cas dem na. conseil mais mais loi bi na mu wax mooy euh, bu la joxul fiche parrainage am nga droit defar sa ay fiche bopp. bien bien sûr est-ce que deful loolu. bu ko defee tamit dégg naa ni déposé nañu parce que j'ai vu la liste nee nañ déposé na. alors te nag benn affaire am na. loo bañ bañ bañ njombor nungul ko noppam yu gudd. Ousmane Sonko ku fi def élection ba gañe fi nga ni te loo woog Ousmane Sonko sa victoire saful. c'est-à-dire l'élection présidentielle sans Ousmane Sonko sans Ousmane Sonko c'est pas une élection crédible et ce qu'on vu mooy que. état bi mi ngi def ay subterfuges pour fexe du doon candidat. mais est-ce que état bi la. waaw xam nga dama njëkkee moom ci ay fautam personnel. waaw mais quand vous cédez le flanc mais ton adversaire en profite mais bu dee ay fautes yoo xamante ni c'est dans sa vie privée c'est dans et cetera et cetera ça n'a rien avec la chose publique. bien sûr. Bien sûr. donc ñi nga xam ni ñoo ŋànk élection yi ak autorités yi fi ne war nañ am diplomatie. politique ak hmm. courtoisie politique bu leen permettre ñoo xam ni kii c'est un adversaire sérieux mais yàlla mooy fal te ñoom ñu jéem ay pexe ba ëllëg teg fi koo nga xamante ni sénégalais yi bëgguñu ko parce que mën na fi indi musiba. Hmm. Macky Sall tamit war na mën a xam loolu mais mais ñoom dañoo dañu ragal Sonko rek mais mais mais mais rien a dit que Sonko mën na doon président ci élection yii yii yii yii mais Ousmane Sonko je dis que je regrette Ousmane Sonko parce que c'est une en politique ici au Sénégal mën na doon 2024 mën na doon 2029 na doon beneen kii 2019 ma def sama élection jël deuxième. troisième euh, troisième je veux dire c'est parce que je veux dire que deuxième ba rawewu ko sax dara. mais mais entre 23 pour cent ak voilà cent bariwul bari waaw non mais ba nga ba mu ca pare moom dafa quitter opposition bi dem ci ci pouvoir bi. Hmm. donc yow yaa nekk dans l'opposition donc presque chef de l'opposition. Hmm, chef de l'opposition boobu moom indi na coow. boobu ah, boobu moom. mais mais non mais non mais xam nga lan la. ça veut dire que la chose politique est devenue tellement ambiguë tellement ambivalent tellement virtuel ba nga xamante ni la réalité nous échappe. alors image bi image bi ñuy defal nii balaa ngay continuer. je pense que c'est la régie qui ñoom ñoo ko def teg image Ousmane Sonko teg image yu Macky Sall à côté. mm sur cette image le président Macky Sall et Ousmane Sonko merci. merci waa régie dualité quoi. dualité bis ñoom ñaar qui est-ce qui gagne en en fin de compte est-ce que c'est Ousmane Sonko Est-ce que c'est le président Macky Sall qui y perd ou c'est la population sénégalaise en quelque sorte qui en compatisse non mais lu ci manti am que Ousmane Sonko gagné ak que Ousmane euh, président Macky Sall gagné man euh, man je veux même pas euh, je j'aurais bien aimé ñu def fi euh, photo euh, Amadou Ba il n'est pas il n'est pas candidat mais tout le monde comprend aussi que c'est lui qui tire les ficelles actuellement jusqu'à présent le hmm. président Macky Sall hmm. et que dafa bëgg héritage bi mu fi bàyyi kenn ku bokk coon ci moom ci ay ñoñam hmm. jël ko loolu la ñuy wax continuité continuité am alo mais Ousmane Sonko li ma mën a wax ci Ousmane Sonko ci tënk hmm. ci tënk hmm. mooy c'est une valeur sûre en politique ici au Sénégal et li ko dal dans le passé oui daf ko war a jàngal et puis ak ñi ko dar aussi tamit ñu bañ ko def un leader extraordinaire ba tax duñ ko wax dëgg parce que nit booy ànd ak moom dee ko wax dëgg parce que ci bu tegee tànkam ci dëgg rek ànd ak yàlla te ku ànd ak yàlla sa yoon leer mais boo boo melee nii tey ci guddi gi ci biir guddi gi nga cuub sa bopp ba suba sa nga waree beneen couleur nit ñi jàpp ni boobu couleur nga yaa ngi nax sénégalais yi te politique Sénégal li ñu fi war a changer mooy naxaate bi ci am ça veut dire le discours politique et le leader politique souvent li ñu lay wax gëmuñu ko parce que gëmuñu l' avenir de ce pays ñoom seen avenir lañ gëm ak seen avenir doom seen avenir goro ak seen avenir jabar et cetera seen seen famille seen belle famille parce que ñi fi jaar ñëpp pratiquement à l' peut-être de Abdou Diouf ou bien de Senghor mais Abdoulaye Wade a commencé par Abdoulaye Wade te ñu ngi fi dégg nii yëpp daanaka Abdoulaye Wade moo leen nampatal ci politique. est-ce que ñu di réciter les leçons du vieux. Hmm. alors dëgg da koy wax ah sa ça que góom boo ko bëggee faj da nga koy xolli diw ci euh, loolu ñu ciy diw mu saf sap mais day wér après. bien sûr yi politique bu naxaate bi parce que leader voilà très bien c'est ça la belle image lii mooy dualité bi am man Macky sàll il faut carrément ñu génne ko ci course bi. Hmm. parce que wax na ni dematul. waaw wax na ni moom mi ngi jàppale Amadou Ba. Hmm. defar nañ parrainage déposé wul som candidat moom moo déposé mais c'est pas Macky Sall mais bépp pouvoir politique porté par un parti politique war a dem ba leader bi jeexal ay mandaam war a dem bu sañoon continuité am. Hmm. Macky Sall waruñu ko meree loolu alors liñ ko war a meree kay mooy bi jéem a faagaagal ay acteurs politiques. yoo xam ni dañu jàpp ni peut-être loolu mu bëgg ci continuité bi mën naa bañ a am parce que ñii bu ñu doonee candidat alors loolu du am na bàyyeeg lépp yàlla. d'accord li nga xamante ni moom la moom la loi wax. Hmm. ñu appliquer ko à lettre. te bañ di ko appliquer tey suba duñ ko appliquer. Hmm. alors euh, beneen affaire bi ma bëgg a wax aussi Ousmane Sonko. oui mooy que moom comme def na testament pare na pour peut-être dee. Hmm. moom war na xam ni benn bakkenam warul tax Sénégal di nekk ci yenn blocage nit tamit da ngay sóoraale nit ñi ça veut dire moom dans ses son son processus décisionnel hmm. yi muy poser ay actes na sóoraale ni il a il est un citoyen parmi les dix-huit mille dix-huit millions de Sénégalais yi fi nekk benn avenir politique am wala benn bakkanam bi warul tax ay bakkani bakkan di rob Sénégal fii. d'accord d'accord loolu nekk lu lu am solo ci mbiru Ousmane Sonko. Mhm. Seydina Ousmane Seydina Oumar Seck dañuy ñëw ci mouvement bi ñuy duppee alliance pour un développement national du Sénégal bokkoon ci ligne de départ bi comme ni ma ko waxee sànq pour doon candidat à la candidature de l'élection présidentielle 2024. pourquoi vous avez renoncé à votre candidature. oui il s'est trouvé que bi ñu defee suñu campagne de collecte de parrainage on s'est retrouvé avec trente mille deux cent vingt parrain amul ku ñu jaay parrainage am. Hmm. amul ku ñu ku ñu ku ñu ku ñu lijjantil ay liste comme ni ko gars yi defee recopier des trucs yoo xam ni da leer ni lii dañ ko préparer indi teg. Hmm. on a fait une collecte de parrainage saine et transparente jënduñu carte. demu ñu def euh, trafic d'influence alors amul aussi benn parti wala benn mouvement boo xam ni ñëw na jàpp ñu on était seul et c'était une occasion pour nous ñu tester suñu doole. Hmm. on s'est retrouvé avec trente mille xam nga seuil minimal bi c'est quarante quatre mille. bien sûr alors donc il y a un écart. mënoon nañoo def comme ñeneen ñii jël ay affaire taf yëngal ba mat quarante cinq mille ñu dem déposer tout en sachant que yow feuille yi nga déposé del xool après ba fii ak la la ba ñu déclaré ñii ñu di nga fi dégg façonu façonu revendication ak ak lu ne di nga ko dégg ñu wax ko hmm. c'est parce que peut-être nañu defee parrainage moo seenu léegi bi ñu amee loolu aussi ñun suñu objectif du élection et c'est inédit. Voici un parti, c'est un mouvement actuellement, mais on a déposé les, les, les papiers. Pour un récépissé. Pour de parti. Hmm. Alors, le parti a une phase initiale qui concerne le Sénégal, hmm. mais il y a une phase d'extension qui concerne l'Afrique. C'est hmm. ADN africaine, Alliance pour le développement des nations africaines. Parce que Afrique, vous développez où Dès que vous n'êtes Afrique, vous nous le développez. Dès que vous n'êtes bu développé te Afrique développé wul c'est presque rien. ñun dañu coller le développement de l'Afrique ak le développement de tous les pays qui constituent le continent. est-ce que li nga li nga li nga wax nii du peut-être justificatif rek pour ne lii moo tax demuñu mais est-ce que réellement. oui euh, on avait la volonté. c'est ça voilà am na ñu ñu ko wax. mais li ñu daj ci parrainage bi ci ay moyen logistiques yu ñu déployé. Hmm. dem sur le terrain. pour dem fan ak fan. Mais on a été à Kaolac, on a été à Kaolac dans les départements. C'est justement on a, on dans a le centre du pays, à Thiès. On a fait Thiès, on a, Thiès, on a fait Saint-Louis, hmm. on a fait Podor, on a fait Kolda, on a fait, comment dirais-je, Kédougou, Sédou. Hmm. Euh, am na defe naa deux à trois régions yoo nga xamante ni demuñu fa mais am nañ fa ay représentants yu fa liggéey liggéey bu mucc ayib te li ñu ci gën a neex mooy diaspora bi dañuy wuyu ak doole. parce que dans notre programme politique daf ci am ay programme yoo nga xamante ni nii vraiment dafa dafa concerner diaspora bi hmm. parce que diaspora bi xam nga Al boo delloo boo delloo quatre-vingt àggul sax cent ans ci ginnaaw l'italien par exemple moo dàqoon a voyager ci monde bi da ngay dañuy dem ba sax ba naan la tu voyages comme un italien hmm. alors c'est parce que boobu Rome daanu na taal nañ ko dëkk bi lépp doon ay ruine mais italiens yi dañoo génn dem ci dëkk yi Amérique Asie partout pour xool naka la ñuy def ba jël jël ci yeneen dëkk yi xam-xam bi ñu mën a tabaxewaate seen dëkk mais après ils ont fait un retour massif ñëw créer ce qu'on appelle des fabriques mooy mooy mooy mooy entreprise yi ngay dégg noonu hmm. ba nga xamante ni Italie boo fa demoon suba suba eh, dangay am am am liggéey ci bis bi presque te fii ngay gis ay citoyens yoo xam ne dañuy toog ay at di wut liggéey duñ ko am c'est parce que y a beaucoup d'unités industrielles y a beaucoup d'entreprises y léegi nag sénégalais yi demoon tugal tukki hmm. dañu war a def boobu retour au terroir maanaam dellu si ci réew mi waaw parce que man immigration genre benchmarking laa ko jàppee maanaam dem xool li baax ci yeneen yeneen indi ko teg ko sa indi ko teg ko sa réew hmm. mais nag loolu dafa am gàllankoor parce que ñoom ñëpp bëgg nañu bëgg nañu ñëw investir Sénégal hmm. même sax bu ñu bu ñu ñibbisiwul définitivement ñu am lu ñu installé Sénégal di dem ak a ñëw bien sûr alors mais procédure yi hmm. ak peut-être des fois ni ngay nekkee ak tubaab yi dem ba sa sa mind changé wu nga jàppe rek al amin comme sa bopp bu la waxee lu mu la wax dëgg la jël sa ay millions jox ko jëndal ma kër fii jëndal ma kii dama fay def usine jëndal ma oto jëndal ma lii hmm. alors souvent ñu ci am lu leen neex ñu dem ba finalement téye seen bopp hmm. alors loolu nag dafa dafa dafa dafa dañ dañ dañ leen ci war a accompagner hmm. et d'ailleurs on a mis en place des organes yoo nga xamante ni nii dina leen ci accompagner comme le club des investisseurs de la diaspora d'accord alors euh, euh, pour aussi répondre sa question bi. oui ndax est-ce que amoon ngeen volonté bi réellement ñun bu ñu bëgg bu ñu sañoon dem. parce que li liñ ci daj déjà ci effort ak ay moyens mais bu doon dañuy nax suñu bopp mais mais mais mais duñ ko ci def. mais est-ce que du leen ngeen di xaar par exemple moo am ñeneen ñoo xam ne dañ ñuy ñëw pour rapprocher leen bu ko defee ngeen mën a bokk ci ñuy partager le gato mais kon bu boobaa non d'ailleurs partager la gâteau xam nga expression la bu ñuy utiliser lu ci bari. te te c'est c'est ancré dans la tête des gens ça veut dire dañu jàpp ni da nga war a falu wala nga bokk ci affaire bi. pour après mën a par jox sa wàll ci gato bi. et d'ailleurs da ngay dégg ñoo nga xamante ni ma jaay sama kër def fi lu ne pour parti bi parti bi jël kii faale wu ñu ma. donc ba ngay jaay sa kër di cotiser ak di di investir yow da nga jàpp ni da war a amaat leneen en retour. alors loolu bokk na ci aspect yi nga xam ni mindset generation war na ko dindi ci xalaat ak. Euh, gis-gisu les hommes politiques ak le sénégalais lamta alors loolu buñ buñ ko bëggoon même avant ñuy sos ADN comme le cas de ñu Touré ak keneen ak keneen ak keneen mais bari na ñoo xam ni jigéen nañu ñëw wax ni dañu bëgg ñu liggéey Cees que ñu dëkk rek man bi sa Seck defee mburoog soow laa démissionné réew mi alors ba tey ñu samp ADN. Hmm. li gënoon a sedd gënoon a yomb mooy dem wut foo tafu. su boobaa doo génne sa poste di joxe boobaa tu vas pas perdre du temps à à de la conception à réfléchir par rapport à une vision à des orientations donc ku bëgg lu yomb bay wut fu mu tafu du def lu jafe. te li ñu def jàpp nañ moo gën a jafe. Idrissa Seck dafa ne mu ngi woo ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekkoon ci réew mi. Mhm. ñu dellu si pour ñu liggéey. Mhm. est-ce mën nañu xaar Seydina Omar Seck dellu si fekkiwaat fekki waat Idrissa Seck. mais liggéey ci lan boobu dafay leer. mais liggéey pour l'intérêt du pays. non mais gars yi dañuy wax loolu rek. ñuy wax loolu rek. donc mënuñu xaar Seydina Omar Seck mu fekki waat Idrissa sekk ci réew mi. non xam nga lan moo tax ma jàpp ni ñun président bu fi falu war nañu mën a. peut-être Liguer contribuer. Hmm. mooy théorie bi ñu tegoon léegi par rapport à l'opposition. que bu ñu élection ba pare campagne ba pare. Hmm. ki yàlla fal dañu ko war a ànd gunge ko. ku ci nekk na nga mën nga jàppale ko. D'accord. Ah, attends, pour que je chute là ba Oui, allez-y. Alors, Idrissa Seck, bu fi doonee président ñun en tout bon musulman dañuy jàpp ni njiit yàlla moo koy fal. tout mun ko mënta seytaane loolu mun ko mënta seytaane. alors bu yàlla jëlee dogalam ba ni al amin mooy président ñun bu ndee jullit war nañu ànd ci loolu. Hmm. donc Idrissa Seck candidat au présidentiel ne nous intéresse pas pour le moment. et je le di ouvertement et publiquement mais Idrissa Seck bu bokkee ci ñi dem élection. ba yàlla dogal ci moom mu doon le président de la république du Sénégal. selon li ma la wax mu doon conviction ci ñun. ma bu doonoon sax keneen Sonko mii wala keneen ak keneen ku mu doon waxuñu dem ci partem waxuñu dem ci coalition. waxuñu jéem a putuxlu wala jéem a wut lu ñu am comme li nga wax noonu. Hmm. mais dina dinañ ko jàppale ci fi nga xamante ni mooy suñu champ de prédilection te bu boobaa lu ñu mën ci apporter ko suñu contribution pour un Sénégal qui sa développe un Sénégal émergent comme disait l'autre hmm. mais dañ koy def parce que ñun ay sénégalais de Sénégal lañ gëm. mais yëgaguñu foofu. oui fi ñu jeexalee mooy par exemple tey. ñu ngi waajal élection présidentielle 2024 balaa nit di doon président il faut impérativement ñu am ñu ko jàppale bu ñu yegg foofu bi ngeen toogee waxtaan ne on renonce à notre candidature est-ce que toog ngeen aussi waxtaan ne xool programme yi nga xamante ne les uns et les autres ñekk ay candidats teg nañu ko par exemple ngeen commencé waxtaan ak ñoom xool li nga xam mooy seen programme bi ñu teg ñu gis bëri gis nañu ñu bind ay livre ci seen programmation bi est-ce que jàngat ngeen seen programme ba tey jii mën nañu xam exactement élection présidentielle si une gis nañu ñi nga xam ne ñoom lañu ñu validé seen candidature kan ngeen di jàppale. non ñi ci bind ay livres yëpp ñu bind ko ñun liir nañ ko parce que ñun dañuy liir. Hmm. dañuy gëstu. bien am na ci ñoo xam ni nag joxe guñu seen programme parce que àggaguñ ci loolu. Hmm. mais def nañu ay débat jot a déclamé comme ni ñu ko defee tey jii nii ay idées yu intéressante hmm. yoo nga xamante ni capté nañ ko. mais amul officiellement ku ñëw ci ñun wax ak ñun ci politique am ak programme politique am. wan ñi ñu lii la bëgg a def te loolu incha allahu rabi am na benn benn kuréel bu ñu bëgg a teg boo xamante nii ci wàllu foncier lay yëngu. Hmm. parce que mbirum kër ak foncier mën naa wax al amin bis bu Sénégal di takk mara day taali yàlla bu yàlla def loolu boo sàggantul affaire suuf dina ci am wàll. parce que li ñu am muy territoire national du Sénégal. Hmm. xam nga fii ba bul boftu bi di wol. Hmm. yàlla lem suuf si. du yokk du sekki du tawee te boo dee xool des na tuuti fii ak cinq ans jàpp dix ans pratiquement dix huit mille millions de sénégalais yi ñu am day multiplier par deux wala par trois donc il va se poser un problème foncier ak fu nit di dëkk dinañ dem ba dootuñu xaj carrément ci suuf si bien vrai que booy dox ci Sénégal dangay jàpp ni Sénégal daal yaatu la mais dëkk bu ndaw la alors donc moo tax suuf si képp ku ñu ci indil benn offre bu dal suñu xel. ak njàng mi ak santé bi pour ne pas citer les autres parce que l'éducation rek c'est un domaine transversal hmm. la santé aussi c'est un domaine transversal te nit boo defarul xel mi tàggat ko ba mu bëgg Sénégal quel que soit ses diplômes boo ko falee jox ko responsabilité bëggul réew mi boppam la bëgg boppam la bëgg boppam la gëm alors nit ki tamit bu bëggee Sénégal sax nga teg ko ci place responsabilité alors te amul wër ak kàttan nga tax mu war a mën a xëy dem liggéey du liggéey hmm. te yow xam nga ni al amin njàng mi ak njàngale mi ak feebar ak faju fii ci Sénégal dafa sooke carrément. Ah, voilà mais, deux secteurs am na am na am na am na ay évolution yoo xamante ne mu ngi koy am faut que ñu jël lépp sànni ko. yan évolution am nañ ci am nañu ci ay ay ay avancement yu yu am importance. par exemple ci éducation. éducation bien sûr. mais xam nga avancement baax na. mais na yàlla yàlla na fekk ngay avancé ce yoon wu baax wa <laughs> mais boo jëlee ñàll wi di avancer mais ca mboy ga nga jëm. donc da bëgg a wax ne li ñu fi def si njàng bi. mais dans la dans l'éducation on doit refaire le système refaire les orientations. d'accord boobu d'accord naa si. voilà parce que euh, gis na ni xale yi amatuñu niveau lan moo ko waral gaa yaa ngi xëy di jàngee jàngale ji élèves yaa ngi gàddu seen sac di jàngale ji mais boo gisee. ni école privée yi baree léegi. Hmm. nga xam ni l'offre de l'école publique n'intéresse plus les Sénégalais. te fi mu ne nii école privée yi waxantuma bari gi ñu bare. Hmm. mais su concours amee wala examen sax daanaka ñooy jël paie. te boo dee xool euh, jàngalekat yi nekk ci public bi mais ñooñu c'est des enseignants certifiés am seen ay diplômes def seen formation bu wér. Hmm. donc ñi ngi doon xaare ci ñoom lee meilleurs résultat mais bu tendance bi renversé woo ba am yenn écart yu mag yi. il ya a, y, a, lieu de se poser des questions. Il faut refaire le système éducatif du Sénégal parce qu'on a un système éducatif hybride. li ñuy jàngal xale yi du suñu du ñun. Hmm. ce n'est pas notre authenticité. bien sûr alors donc loolu dañ ko war a changer. les langues nationales tamit problème la dañ ko war a changer. ñu dugalaat ko ci alors vingt ans ou vingt et un ans d'enseignement général aussi mais erreur la erreur la da ngay gis ku dem ba am bac amul benn qualification. ba mu dalee jàng ba léegi ci enseignement général la nekk. Hmm. alors que à partir de la troisième war nañu ubbi des filières professionnalisantes yoo xam ni xale bi bu ci jaaree à 21 ans non seulement dina am bagam mais day fekk aussi tamit mu am benn métier boo nga xamante ni même bu ko état bi jëlul moom mën na caa xëy. mais yow nekkoon nga ci lu jëm ci wàllum syndicalisme. est-ce que loolu toujours est-ce que loolu proposé woon nga ko ci seen yi nga xam ne yéen a ngi koy am. mais mais mais mi ngi tudd actuellement force nationale des enseignants pour le renouveau de l'éducation FNR. mais dafa dafa amoon beneen tur bu jiitu loolu. Hmm. muy SIDES. syndicat d'initiative pour la défense de l'équilibre dans l'enseignement syndicat d'initiative ñun bi ñuy sos syndicat di dugg ci syndicalisme c'était un syndicalisme de proposition. Hmm. un syndicalisme de participation. Hmm. dans l'action gouvernementale. mais am na peut-être loolu du fi xaj mën nañu ut beneen jataay ñu waxtaan ci. le SIDES mën naa défier quiconque proposition yi ñu def autorité bi le ministre de l'éducation nationale amul benn syndicat bu ko bu ko bu ko ko mus a def ci domaine bu nee nag même ci civisme ak construction citoyenne boobu def nañ ci ay projet ak ay programme fan la mujj mais ministre bi da koy jël teg na leen ni budget bi amu fi. bi fi nekkoon Mamadou Talla. mais c'était pas Mamadou Talla c'était lu ci bari avec Serigne Mbaye Thiam. Serigne Mbaye Thiam sax am na ci benn proposition boo xam ne dañ ko ko proposé moom mu jël ko moomale ko boppam daal di koy def semaine de l'école de base euh, la fameuse semaine retour au royaume d'école hmm. mais c'est nous te ci tele laay waxee c'est nous c'était une proposition du SIDES de la force nationale des enseignants pour le renouveau de l'éducation mm. on voulait que yow Al Amine léegi tekki nga am nga benn standing de vie sociale yaa ngi ci telle institution wala yaa ngi ci lii mais xam nga njëriñu école ak sa formation li mu def ci yow ba tey jii tey nga réussir boo dee xool amel nga njukkel amal nga bor l'école publique léegi quest que tu vas faire pour cette école-là et d'ailleurs l'édition s'appelait pour mon école moom il devait être la première personnalité buñ ci war a invité hmm. ñu jox ko terme de référence yi ba son directeur de communication recevoir ñu wax ñu leen il y quatre phases et la voyage retour à l'école ñoom bañ ca namoon lañ ca def finalement noonu voyage retour à l'école boobu lañ jël dugal ci royaume d'école hmm. alors def ko seen kii yaa aussi sous le drapeau bien un projet ki est là y a SOS éducation rurale yooyu yëpp proposé nañ ko administration bi mais dañu jàpp ni ñii ay syndicalistes lañu. suñ leen jàppalee ci lii ba ñu def ko. day doon seen succès day doon da leen di gën a dëgëral et cetera mais ñun li ñu dugal ci syndicalisme. mooy faire des propositions à l'autorité et essayer de trouver les failles du système alors apporter ci ay ay ay ay ay solutions. mais l'autorité ne nous a pas suivi dans ça. d'accord am na solo bu baax a baax euh, kon jàpp leen ne ba tey ñu ngi ci dernier jour les dernières heures d'ailleurs. Euh, ci li nga xam ne moom mooy euh, dépôt euh, dossier de candidature foofee ca conseil constitutionnel il est exactement donc presque 18 heures 10 minutes à montre en tout cas ci li nga xam moom mooy jëm ci li ni on essaie d'attendre jusque là ci li nga xam moom mooy jëm ca conseil constitutionnel avec nos jeunes qui sont là-bas Ibrahima Khalil Diémé ainsi que Abdoulaye Fall ñu xool lan moo fa daal di xew xëy na du ci ñàkk fii ak édition yi nga xam ne ñoom ñoo cay daal di tegu daañu ci dellu soit ak yeneen ni gan yoo xamante ne daañu waxtaan ci li ni mel bu ci kanamee incha allah Fatima Koulibaly dina fi ñëw togg ak ganam ñoom tamit ñu wéyal waxtaan wi Seydina Omar Seck mbette la woon ñu dalal la tey ci plateau bi je rappelle malgré que euh, fi mu ne nii moom li ñu wax euh, patate chaude bi moom bàyyi nga waat waay waay waay patate chaude bi mooy mooy kan mooy candidature bi candidature bi c'était pas une patate chaude hein ça veut dire que xam nga lu xew rek yàlla la te ñun ñun ñun ñun ñun suñu suñu démarche ak suñu ngëm-ngëm mooy lu am lu ne yàlla la te yàlla lu ko neex lay lay def hmm. lu ko neex lay def allahu liman yurid la wax lu ko neex laay def donc lu mu def ba ñu gis ko constaté ko rek dañuy jàpp ni lii lu neex yàlla la kon dañuy neex forcément bëggoon nañ dem ci élection yi ah. mais yeneen élection yi ñëw te ñun li ñu am ci yéene pour euh, war ko liggéey fii ci Sénégal que ñu doon président ak ñu doon député wala ñu doon ministre sax du du ñu def ko parce que ci loolu la nekk depuis qu'on a été en action parce que man j'ai intégré l'éducation depuis 2000 pratiquement 23 ans de de de de, carrière alors ñi ma xam ñëpp doon sama ay collègues ils m'ont connu dans l'initiative am na ñoo xam ni jàngal naa leen et de manière volontaire parce que j'ai été volontaire de l'éducation nationale donc ku àttana jël quatre ans wala deux ans au minimum de ton existence nga def ko volontaire état bi waroon la fay xaalis bu bari tu as rejeté tout cela dem au fin fond du Saloum di fa jàngale les citoyens de ce pays ak leneen ak leneen am na ci ñoo xam ni ba léegi ay jàngalekat lañu maa leen jàngaloon. donc loolu c'est une satisfaction te loolu duñ ci jóg mais nag li nga xamante ni mooy suñu champ de prédilection mooy suñu hyper priorité. mooy l'éducation la santé l'agriculture bien sûr alors loolu moom que ñu doon président de la république bu ko yàlla namee ci ñun loolu dina am que ñu doon ministre ou député ñun duñ ci jog parce qu'on trouvera toujours les moyens et les idées de pouvoir réaliser ce qu'on a comme initiative te ci loolu la ñu nekk nii. mais dëkk la woon ñu dalal la tey ci plateau bi. voilà di la remercier yow tamit vraiment. c'était très intéressant alors di remercier toute l'équipe ak la régie. ñi nekk ci ginnaaw liggéey bi rafet na waa leeral moom lépp day leer nañ. ñi ngi leen di ñaanal nag ci xol bu bu bu sell. que kër gi nii yàlla na ko yàlla yëkkati ba ci kaw a kaw kaw kaw parce que ñu ngi leen di suivre bu baax te gis nañ seen liggéey mucc na ay macha allah macha allah yal na nangu ñaan yi ñu gërëm ko bu baax sant ko ci euh, déplacement bi euh, c'est pas évident bien entendu euh, jóge ca ca ca Thiès fekk si ñu mais il l'a fait de façon vraiment en tout cas accessible et ouverte bien entendu ak li nga xam mooy maanaam teewaay bi mu teew encore une fois donc ñu daal di leen di ni ci kanam tuuti incha allah fi ñëwaat